sa cofeel ci sëñ Béthio dëgg dëgg rëy na yow la ni àndal liggéey soxna Ayda liggéey sëriñ Tuuba góor dabu la ca yow la ni àndal liggéey soxna Ayda sa cofeel ci sëñ Béthio dëgg dëgg rëy na yow la ni àndal liggéey billaay liggéey sëriñ Tuuba gën dabu la ca yow la ni àndal liggéey soxna Ayda sa cofeel ci sëñ Béthio dëgg dëgg rëy na yow la ni àndal liggéey soxna Ayda liggéey sëriñ Tuuba kenn dabu la ca sëriñ Béthio xam na ko yow la ni àndal liggéey bu nu fàtte liggéey sëriñ Touba sëriñ Béthio xam the

jërëjëf docteur universel lamp Adja Bani jërëjëf tur dinaa mit mbata waaj mbaaru soxna ay da sant jaar jërëjëf tur di natu salaam

structure Thiès Bayal universel Serigne Khadim Jawal universel Serigne Khadim Gueye jërëjëf tur Lissa Malick Sy universel Idrissa Ka jërëjëf tur yàgg fa lool tëwal sant nañu bu baax si tawféex jiiru am jàkkaarloo seen jëmm ju tedd ñu ngi tuubal sëriñ Béthio bu baax day ñaan ngeen yàgg fi lool tëwër soxna Aïda Saliou yàlla nañ fi yàgg lool tëwër sagal ngeen sagal te yéen barke sëriñ Béthio moom suñu xool dafa fees lool ñoo ngi ñaan sëriñ bi déwén ñun ñëpp bépp taalibe soxna Aïda Saliou bu xaar gën a tàqee nga jëlee ko ba indil ko sanjib ndax mu rafet mu gën lu baax moom moo ko defoo jërëjëf kon yàgg fi lool tëwër waaw xëy na muy mel ni xar am na ñoo xam ne amoon nañ yéene seen bos yeeg seegul ndax euh, xam naa ni ak guddi géeg yooyu euh, universel Sidi bosam moom dina ñëw am na yeneen ñaar ma déclaré yu waa États-Unis donc am na ñett universel Sidi ak kan Sidi Ndour Sëriñ Saaliw Saaxo universel ak kan waaw te am na ñeneen ñoo xam ni it nee nañ ñi ngi dikk ah, waaw waaw moom tàmbali la tey ñaan nga dimbali ñu ba yéene ji moom kenn ku ci ne yéene mooy jàpp xaru boppam indi waaye loolu muy minimum yéene ku ne mooy dem ba di la jox gétt kenn par kenn barke Sëriñ Béthio ndax àdduna la yaakaar waaw te ah <laughs> moom moom moom ñi ngi koy def yaa ngi koy mën loo saa ne kon ñu ngi ñaan nga gën ñoo dimbali di la tubal mom ani tawasulu bi dajale nañ tawasulu ñaata la 30000 mille dajale nañu it addiya ani señ xadim jobay mi ngi tol ci ñaata 200000 ñu ngi toppal ci lepp ci neew gi aw ndax mu ne su la indi ba indi lu melni lu bari ndax booy jëf ci sag matat di ñu lay nangu ci sag mat moom moom saa su ne loo def du doy kon dañu koy gàttal rek di la sant lool ci tawféex yi ci jàppandal gi waaw ci ci ci gën a gaawle gën a neexle gi tey ñaan saa su ne rek saa yu dikkee moom am sa mbég waaw loolu la ñuy sàkku euh, dajale nañu it ngooñ indi nañ defe naa juróomi saaku ngooñ ak ñaata ak 100000 jërëjëf coon ñu ngi lay tuural ci lépp jam ñi ngay gindi jam ñi ونفخ